Euh, sëñ bi ñu ngi lay fay. lii daal seen kaw tey ji ñu fekk leen fii ci place bi euh, en tant que Mor yéen waa Fass leen dal tey yan kàddu ngeen ci man a rafet. bon kàddu yi ñu ci mën a wax bëri na trop trop trop parce que fii boo gisee ñi la wër ñi ñëpp ay xale lañu mais tamit ku nekk am nga malheur boo xam yaa ngi koy sax xol euh, ñun ñu ku ci am nga si rakk wala am nga si nijaay am nga si papa wala am nga si xarit yu demee noonu donc gaal gi dafa tëmb un mois cinq jours la am ou bien un mois six il musul intervenir C'est c'est pourtant Il interpellé les personnes, mais pourtant wax ko ñaan ko ak pour le marine nationale bi pas nangu def ñun pas ne pourtant face Boy qu'il si recherche Sénégal ni village wax ma village région parce que si la pêche elle est là Ce agriculture pareil donc ñun li si Sénégal bu Sénégal c'est malheureux quand même parce que saa à fii ku nekk nii nii nii nga am malheur muy xale bu ndaw muy magum jëm ku nekk am nga malheur parce que li gën a bon mooy say mbokk dem si géej di dee di gis dee par kenn di dee ba jeex te tey jii boo gisee Fass booy kër goo dugg maanaam boo amul dëj da ngay kër gi si topp am na dëj te lii lépp ñun yaakaar na ne état moo ñu teg lii lépp parce que tey dafa jaay suñu géej gi bato yi géej gi yëpp jaay na ko bato da ngay tëmb ba teer doo jàpp dara dara ñun ñi fi nekk ñëpp ay nañ dañuy tëmb ba sonn du ñu jàpp dara dara léegi na da ngay obligé nga bëgg a jël gaal gi dem gaal gi moom ñëpp xam ne risque la mais dans la vie il faut risquer parce que boo risqué wul doo am dara parce que mënoo fii ay jàmbaar fi ne Fass ay jàmbaar kese fi ne mais da ngay tëmb ba teer doo jàpp dara bu ko defee nga ñëw xool paa bi wala maire bi ñu sëgg tamit wala nga tëmb ba noor bi jeex paabeek bi ak bi di la may ay cinq mille yooyu ay yére dafa dafa métti te dañu màgg war a tekki teral yaay ak baay donc bu fekkee ñun mënatuñ am loolu gisatuñ suñ bopp Sénégal dañuy obligé jël gaal gi pour dem loolu moo waral jël gaal gi loolu moo waral malheur yi ngay gis ni yëpp tey fi tey da ngay gis kër goo xam tey jii Fass boo fa duggee am na six personnes ba sept yoo xam dee nañ kër gi boo fi ngeen jóge fii léegi boo fa demee six personnes dee nañ fa nga dem yéen a kër yi trois personnes yii quatre yi si gën a néew la am nañ si ñaar te ñëpp Fass boo nañ dëkk fii nañ juddoo fii nañ yaroo fii nañ màgg ça c'est une malheureuse c'est une chose qui est malheureuse dañuy ñun dañuy ñaxtu dañu ñax demo ñoo ngi juk euh ñu yabal seen force de l'ordre ñu ñew fi jël nañ fi ay xalé yu bari te ñun duñu doon sétane lool loolu suñuy suñuy ndaw dañu koy indi latal wala ñun ñu joxe suñu bakkan. la mo tax ñu jël ndaw yoy parce que dañu genn wane seen nakar wane seen ñom dañu dañu am nakar dañu am njàqare donc dañu war genn ci tali bi def ñun dañu genn def marche ñu paré ñu jox bay ba nit ñi tëdd ñu jël ben ak ben jël ñeneen ñeneen dañ leen dóor bala leen jël ñeneen seen kanam jabar nañ leen jël te lool du yoon. du yoon parce que état mosu fi wanee dara mosu fi yabal dara du bàyyi ba ñun ñu nekk si malheur mu ñëw indi ay force de nit ki nga xamante ni boo ko saraxatul waroo ko jël li muy yalwaan n'est-ce pas donc ñun deele nañ ba pare nañu bàyyil suñu ndaw ñu fi des ñu nekk mais jël suñu ndaw di dóor te police ku ne xam ne day yàq nit ku ne xam ne police day yàq ñu jël suñu ndaw yóbbu leen di leen dóor ak di leen massacrer te loolu teguñu ko fen état état nañuy waxal ñun mais tàkk-tàkk yi ñuy romb ci yoon wi ak barrage yooyu ana ñan ñoo fi def loolu waaw tàkk-tàkk yi ak barrage yooyu ndaw ñoo ko ñoo ko si def ñun ñoo ko si def parce que lu def ko mooy dañuy wane ñun am nañ lu ñu métti trop alors que bi ñu bi ñu avant ñu teg barrage dañu wane ñun dañu woote état une fois mais mosul intervenir benn yoon donc bu faayee ba malheur bi ñëw mun day intervenir nan la intervenir mais par la voie négative mooy lan ñëw jël ndaw ñu xoqatal leen bu ndoxal leen jàpp yóbbu la loolu yaakaar naa ko am na naqar waroo ñëwee noonu si moom Si vous war nga vous dimbali comprendre ndaw ñi ñi vous am nga comprendre vous mais pas nga dans la vous négative nga ñëw vous ñi fekk leen vous jabar di leen di leen vous vous dañuy vous état suñuy ndaw dañuy ñëwaat suñuy ndaw dañuy koy vous nombre bi des euh, nga xam vous ci bi vous ba vous ñu bon exactement pour l'instant Vous la parce que euh, dafa dañu Vous Cap Vert information yi dañ koy am par nii rek parce que xamaguñ ñi fi des mais ñi dee moo bëri ñun wax dañ dee bëri mais ñi des mënoo gën a xam parce que des fois da ngay xëy ba si yàgg ñu ne kenn wàccaat na des fois nga xëy ñu neew si kenn wàcc na des fois ñu ne kenn wàcc na ba si yàgg ñu ne kooku non wàccul mi ngi dund c'est-à-dire moo tax mënu xam exactement lim bi ñaata la mais bu demee bay ñëw waaye ñëw xëy na incha allah bu ñëpp woote ñun daan xam lim bi ñaata mais pour l'instant Fass Boy ko toog si nen du toj léegi notable wax comme dëj bi koy boole wala dañ koy non pas encore nag euh, man xamaguma ci loolu lu bëri quoi mais yaakaar naa bu ñu gisee mag ñi bu leen gisee mag ñi incha allah ñoom dinañ la wax ci lu leer mais quant à ñun ndaw ñi yaakaar naa xamaguñu comme dëj bi nu koy defee affaire demee waaw Mouhamed Diop la. Zeki ginnaaw bañ la nuyoo di leen masawu ci li nga xam dal na seen kaw euh, jamono ji Fass dafa mel ne kër yëpp kër goo ci dugg rek am na mbokk ci mbir mi yow ngay champion ñu xam la ci làmb ji fekk la fi si dëkk bi ana kàddu yoo ci mën li ma ba amee jàmm di jox seen wàccuwaay di leen masawu coono di ko masawu suñu mbokk jullit yëpp di di euh, wax ñëpp ñu leen di jaal li ñu bokk mais affaire bi métti na trop tiis la quoi bu dal si Sénégal lay wax dama wax faa Sénégal gi yëpp ñoo ko yëg mais xëy na peut-être yàlla moom lu mu programme ak ni programme di bok yàlla moom moo dogal lii quoi ces gars yi ay jàmbaar lañu woon ay bañkat lañu woon ay référent lañu woon si dëkk bi ñun ñëpp ràññale woon si dëkk bi foo dem fii ba Kayaar ba Ndar xam ne tey tey ñu des si gaal gi mais lépp seen jàmbaar ak wuti teraanga moo waroon dugg si gaal gi mais yàlla moom moo def lii tey quoi mais da nga koy nangu xam ne moom lu mu lu mu décidé rek loolu mooy am waaw. yéen ana bataaxal bi nan ngeen ko yëgee. mais xam nga rek dañuy jóg comme par information quoi ndax am na benn gaan bi nekk foofu quoi moom mooy partagé euh, audio yi quoi ñu ñuy xam mais pour l'instant nii quoi maam comme version yi dafa bëri. ñii dañ naan lii la ñu ne lii la quoi ba léegi nii quoi amaguñ si comme information yu yu logique yoo xam ne da nga mën a téye quoi mais tamit lu wax rek loolu nga mën a jàpp ba ko nga gis leneen waaw. jamono jii dañ fay ñëwoon ngeen ni àddunaan xale yi nañ leen xool côté Cap Vert mel ni ku ñu ne xale yi ñu ngi wet googu ba tey mu feeñ mu gis ni am na ay réeróo yu am ci diggante waa Fass ak force de l'ordre yi loolu lu ngeen ci mën a wax. mais xam nga tey fii ñi ay moon lañu quoi te kenn ku ne ak sa wisement quoi kenn ku lu wax rek yow bu ko bañal quoi. même soo ko loo utilisé wul loolu rek jàpp na loolu moo baax quoi ndax ñi koy wax ne ay mool noonu quoi ndax moyen bi waroon su nga amoon ñoom demoon na ma dañ tëmbal gaal xoole xale yi yaa ngi dégg doon dem benn état la ndax amoon na caare gee quoi gaal gu réer gars yi dem di ko seeti mais dañ si jëlee tamit neexulee ñoom dañu mujj réer comme ñoom loolu tax gars yi teggiwaat seen tànk quoi maa boobu ñuy wax pour marine bi tëmb mais marine bi tamit tëmbul te ñootu woon nañ yaakaar na amoon na si yekki ne moom du tëmboon maa affaire du yegg fii quoi maanaam si 15 jours yi bi gars yi di ñaxtu doon su tëmboon yàlla mën na def mu gis leen deuxième match yi mënoon na tëmb tamit du leen gis mais nit li nga war waraloo moom def ko quoi ndax yàlla mooy feeñal mooy réeral nit ki mënoon nga tëmb wër géej gi yëpp doo ko gis quoi da nga xam ne loolu programme suñu borom la quoi mais tamit ñu ngi koy naqalu bu baax baax a baax tiir la bu métti su ñun mais tamit ñu ngi dellu tamit sant yàlla xam ni tamit moom mooy def li ko neex waaw yéen en tant que mool di dem géej gaal lan moo ko mën a arrivé biir géej ba mën faa def weer ak fukki fan ak juróom mais gaal mën na dem ba biir géej ka moteur bi am problème wala mu cool essence du fekkee kaabali kaabal gi baax na buumu doñ yi tamit doy na maam si sere mën naa nekk foofu si njabalu doyee tamit yaa ngi dégg ndox mu doy yàlla mën na leen suturaal ndax gaal jéeganu maam kii mool moo ma nekk si gaa gi soog am mu mucc ki nga xamante ne moom kaw kaw la mu dee non non jéeg am na foo xam ne dafa tolloo mool mel ayoor bi ñoo fay yem ndimbal suñu borom rek moo lay dimbali foofu quoi mais gaal moom tey tey moom risque yi si nekk tamit dafa bare mais ñort woon na su fekkoon am nañu njabalu doy mool maam tey tey li ko yóbbu yombul mais tamit gaal doo su nekkee tey tey nga gis ni kii yéen a nekk tournée bi yëpp nga jegg saa moom mu des say loxo maam du xiifaa nga sax maam protection boobu mën na la yóbbaale te nii rek nii rek ngay doon te dilisants yi dafa bare woon si gaal gi kenn ku ne dafa am ñoo ëmbaale yóbbu quoi yaa ngi dégg ñu doon responsable ñu yaakaar la ñu toog leen seen loxo avant ngay dem si gaal gi ñoo soo gisee kenn koo xamante ne na la deen rek yow doo mën a nekkati nit loolu pression bi tamit day day day yóbbaale gars yi waaw. waaw kàddu gi mooy tey tey daal bépp gaal gi fi jóge ak fu mu mën a nekk yaa ngi nga xam ne da dem calanisé yaa ngi dégg nga jël ordre yi tax mooy tax nga dem calanisé moo xam machine bu baax la moo xam gaal bu baax la moo xam essence bu doy moo xam jaw bu doy ko ndax lii nii moom gënalul jeunesse bi nekk fii dugg gaal dem ba Europe fii doo fi ñëwoon 2014 2015 am na Modou Modou xam ne mu mujjee ñëw fii gaan pour pour doosewaar fi Modou Modou daañu ñëw faat kii ba jénn du ñu jàpp ne sax Modou Modou ñëw na ndax duñu ko tal dañuy nekk si jéeg gi da nga daan tëmba gaan huit heures yaa ngi dégg nga téye sa mbaal ba ba cinq heures du ñëw jaay sa xaay toog mais loolu moo amatul moo waral jaayante bi am mais di question maam Sénégal baaxul Sénégal baax na dëkku teranga la mais koom-koom bi moo doxatul Sénégal baax na de dëkku teranga la mais koom bi moo doxatul deuxièmement mooy partage wuñu boolem doole yi jàppalante wuñu loolu mooy métti senegal mais Sénégal mi ngi dox ba léegi waaw. léegi seen doom yi nga xam dañ leen a jël si bu ci guddi yóbbu leen arrêté leen lan ngeen ciy sàkku ak lan ngeen ci bëgg. mais li ñu sàkku mooy ñaari tiis man war na man a war na mën a ñàkk quoi ndax li saa ñu doon nekk di jooy nii pareeguñu boo leen jëlee fii ñu leen jëlee ay trois heures du matin kër jàmbur góor dajji xamoo nu mu def ba jënd bunta boobu xamoo ko jàppale woo ko si dara cellule cellule boobu mu cellule boobu mu daaj noonu i kay ken ko daaj mën na ko jënd dëkk bi fu mu toll nii gaayan maam kenn ko ne gaayan li nga yor da nga ko si suturloo affaire yi métti nañu lool lool lool ba sa kanam yàlla ndax mënoonu nekk gaayan si naqar di jooy pareegunu nga ñëw jël ay nit yoo xam di cité ay nit ci tey tey police yi nekk si àll bi mënoonu xam kii néegu diwoo kii néegu diwoo man dama jàppoon nanu bàyyi loolu ñii di ges ñii di suul faax ñoo ko bokk rëyul mais nan la policier man a def ba seppi ay xale kii xanaa dañoo ànd ak ñoo xam ne ay doomi dëkk la ñu leen di indexé mais policier maa su yore otaam fii gaan xamul kër mhm. xamul kër xamul tur mhm. mais naka ngay daajee kër jàmm ne ana diw am nga information yaa ngi dégg ñun ñëpp faar booy ñun duggee duñu xëy duñu xëy ni wadd ni fi mhm. duñu fi étranger fii leen juddoo affaire nan ko teg su ñu yërëmante ñu jàppalante ñi ñu teg ci dëkk bi tamit ñu xam ne dëkk bi am na lu mu soxla ñu dox su loolu man loolu laay wax quoi mooy sama dernier la laaj quoi waaye jeunesse bi instant doon son na leen jàppale na leen jàppale